naa la mais du ko wax dara ay weer yu néew la fi ñëw korite ndax koor juróomi fan ca koor ga la jógee Saint-Louis kori mu ñëw daaru salaam bi ñuy bëgg a mhm. ñu ganale ko tam xarit màggal gàmm ga man ma ne nañ ko ba génnewaat ko réew yi yóbbu ko ndeysaan te dañoo fexe ba invité Cheikh Sidé ba mu ñëw ndar ndeysaan ñu convoqué sëñ Touba ne ko Cheikh Sidé yaa ngi ndar dalay woo mhm. xam xool ba xam ni affection bi mu am digganteem ak Cheikh Sidé ak ni mu bëggee lu baax ne ko nag yow da ngay mooy ordre prophète parce que prophète mu wax ne mhm. képp koo xam ne jullit nga dafa war ngay topp sa autorité réew wallahi la asm loolu lañ bind ci lettre officielle ba léegi nag keroog bi sëñ Tuubaa jaaree ndar Cheikh Sidi dafa ñibbi taalibeem ba ñëw bi muy ñëw moom la àndat ba ñëw ndar suñu am bi ñu xëyee ba yëkkati drapeau bi yow faa ma neexal la sëñ Xaadim tey suñu am yow yow yow yow bi ñu ñëwee ba yëkkati drapeau bi suba teel gi sëriñ Tuubaa ñëw taalibe taalibe Cheikh Sidi Cheikh Sidi xam nga bi ñu yëkkati def seen kaloon yooyu def seen musique bi noonu mm-hmm. daal di yëkkati drapeau bi ñuy saliyee dañoo woo sëñ Tuubaa bu ñëw mm-hmm. mais bi sëriñ bi agsee taxaw fi nu taxaw daa wan ginnaaw drapeau bi mm-hmm. gën a daan ne kii lu muy def nii nañ ko forcé mu woon ginnaaw mu ne ko mu ne ko ñoom di xamuñu waaye maa xam mm-hmm. mën naa ko woon ginnaaw waaye su ma ko xoolee fu drapeau Sénégal France nekk dina wàcc te boobu xam nañ sëñ Tuubaa dañ ko nangul loola moom rek moo woon ginnaaw moo woon ginnaaw drapeau bi ñu doon yëkkati mu jógee fa dem dem dem dem Mauritanie gis nga dem Mauritanie gi bañ demee ba mu yàggul li tax ñu delloosi ko bokk na ci yëngu-yëngu yi ma la wax mais bokk na ci dañoo dem ba far nit ñu weex ñi di nërëm nërëm di jébbalu sëñ Tuubaa ñu ne bu fi yàggee ñëpp yeex banu day maan ñëpp dañoo ñëw jébbalu inna banu hasanin dalat fasahatuna inna ila al arabi al arba inan tasibu in lam takun bayinatun annana arabu hmm. fa fi lisaani bayaanan annana arabu cheikh baba yu almashar ñëw ne ko sayxun bihi xat unil naa kulla makrimatin xataa bihi ahlu baydaa wa ahlu misra wa man fi l ardi kullihimu akrib bihi min imamin 3 mois Liverville, 5 ans Mayomba, 2 ans Lambrana, 4 ans Mauritanie. Si, mais moo xam la tuuti ci procès Bamba procès bi. waa jàngoog. oui ma <laughs> waaye sëñ Saari bu daan ko wax waa jàngoog. oui ma waa jàngoog. <laughs> waaw waaw. Raasu ah, Xadiimi. waaw nu way Xadiimi. ndeysaan Muxti Luwaayi. waaw Serigne Touba dalal nga xel yi. Ah, waaw seral nga xol yi. bakki sëñ Touba indi nga may yi. birantiya yi. cey Serigne Touba. yaa seetlu dund. Mm. amuloo dend. yow rek a ànd waxtaanaa naa cey Serigne Touba xoraan nga dëggal yoneen nga dikkal yaa ko fi nekkal waxtaanaa naa yi. wallaay cey Serigne Touba wéetal mbay na gërëm. bilantiyaa yi cey Serigne Touba barke ak texe Serigne Touba ki koy joxe ñëw te fexe wana fu jaay yi cey Serigne Touba li mu tagg nabi moo gënal rab yi. kaddu sëriñ bi fi lawliyaa yi buy tàgg rasool aras di sàbbal am la di yóbbal li lawliyaa yi cey sëriñ Tuuba say wax laa doyloo mahfuus nga solo yàllaa la wayloo fi lawliyaa yi cey sëriñ Tuuba yaatal nga diine wóolu teg daay na jaay Serigne Touba Khadim Rasoul. maa la ko wax jërëjëf <laughs> waay waay waay eh, maam Moussa. sëñ Khadim fi mu toll dama bëgg mu continuer ko. mais dama laa bëgg a jox euh, nga indi ñu ci ay kii ndax. Mhm. Eh, sëñ moor Yande. Mhm. xam nga xaw ma raditu anil Mawla ngay dem ndax sëñ Pape Omar ak may sonal ci raditu bi. waaye waaye ci sëñ ah, mhm. moom daf may yëngal. Euh, dafa ñëw ba ci. raditu bi xanaa sëñ Imaam. Euh, Imaam Serigne Khadim tasawuf. gis nga démb dafa am lu am solo. luñ doon waxtaanee. sëñ tubaa nee na mën ak tubaab bi làmb la joo xam ne ca runkum ji njëkk ja mhm. biñ jàppante mhm. ku ne xam nga ki la man waaye booba rocc daa wees mhm. waaye tubaab bi bu mënoon roccee ko reculer ci runkum ji njëkk ja lay reculer am na sax feneen fu ko kilifa gën a leerale ci dañoo toog ci mbooloo mu tàppaas ko ñu ànd bëri dugg ci xur wi ndax kii da koy tere kii ne ko duma bàyyi biñ génnee ci xur wi kiñ doon tere bàyyiwul ki doon tere tereetul tubaab bi lu mu doon bañal sëñ bi ba tey loolaa gam te tubaab bi lu mu bëggoon loola raf na mhm. waaye tubaab bi moom lépp lu ñu bindoon ci rapport yi ne nii lañ bëgg li mu ko wax soit oublié senegal la mhm. lam bëggoon lépp moom tey loola dafa mel ni covid beneen at ah, ah. covid 1895 waaw ba 2024 covid am tubaab bi jox ordre OMS joxe ay instruction noonu nañu tëj jumaa yi respecté mesures barrières yi. bu ñu laalante bu ñu nuyoonte nangam sàngam nangam sàngam loolu lépp sëñ Mountakha ni d'accord waaye jumaa ji du ma ko tëj. déedéet xanaa xamoo sëñ am. Mbacke sëñ Tuubaa bu yemoon ci Matlabul Fawzayni rek jeex na. bu yemoon ci Matlabul Fawzayni rek. doy na ndamam. waaw Matlabul Fawzayni rek. nga gis liy dox Touba ba nii ni muy doxee lu mu bind ci Matlabul Fawzayni rek ba mu koy bind. sëriñ Saaliw bi mu koy nettali waa kër Cheikh Béthio ñoo toog sëriñ Saaliw bi mu koy bind bërti bërti gaynde geeg mbaam àll gi ku tolloon njaareem mën na ko dégg sëriñ bi mu leen koy nettali danaan dan leen boobaak léegi sax sàllaa wax ko fi kenn loo xam ne bi ñu koy bind 1888 ba nii programme boobay bu dee jumaa ji waxuma la ñi ko ñi ko ñi liggéey waaye ñi koy liggéey da leen a ñaanal jéggal jumaa ju wax waxfir li man banaw bina ahar rafiin waxfir li man amarahum bi il jamii jumaa ji lay wax xasida gi nga tudd sànk di karam naa bi muy nekk lambarana la ni yàlla matal na sama yéene ci jumaa ji waaw rabbi stajim waltu kamil maana waytu la daa tuubal lati bi ko tub naa fii ka bunyaana léegi nag jumaa yi jullikaay yi na bëri maa la ko ñu tëj ba faw maa la ko tan tusbitan fii i jamaatan tuqiim asalawaatul xamsi daban yaa kiim covid ñëw ñu ne nañ tëj jàkka yi nañ tëj jumaa yi sëñ Muntaxa ne jumaa ji du tëj kon la taxoon ñu yóbbu ko pas-pas bi ndax ñu fàtte ko mhm. nga xam ne loolu mooy subsisté ba léegi waaw léegi aj jot farata mhm. ñu tëj màkk ñu ni aji wu ñu ren man leen dangeen a juumte aj am na man leen ren ji at moomu ku màggale aj nga <laughs> waa ñëw xam nga xam nga waa di ji firim yi saasam foofu du koo indi mm-hmm. Mm-hmm. liman bi dox liman bi dox mooy koo xam ne il est incapable mm-hmm. incapacité da ko frappé ngir mu aj mais irtada amoon na volonté dem léegi yow nga amoon yéen dem màkka ñun la tëj nañ màkka aj amu sëñ Tuubaa ne la boo ñëwee màggal si aj nga ku màggal bisu tutteem ba jiyaar nga aj nga umra nga am nga yoon am yool ba wallaay sëñ Jaara sëñ Tuubaa soxna Mariama masha Allah am xol yëpp seet na ñi ñuy topp xaw moon ne sëñ Xaadim Njaay la garaaw yow sëñ daam xam <laughs> moom ak ak phénomène bi mu ko teg sax moo doy waar moom <laughs> yow xam nga Xaadim <laughs> ah de man kontaan naa ci bu baax a baax sëñ am ñi ngi fàttali ñu nekk ci YouTube bi rek di ñu seetaan mhm. nañ def seen numéro bi nga xamante ne mooy piisu promobile bi bu ko defee ñu jox leen ci paasu màggal gi am na tamit ticket yu ñuy maye yoo xamante ni bii si fii lay déparé ci Touba TV waxtaan bi tubaarkàlla boobu tey mbokki taalibe yi ñu ngi koy topp kontaan bay bëgg bay bay bëgg a dee sëñ am ndax sëñ xaadim moom wax na fi wax joo xamante ni mm. ah, tey xol yëpp ñoo ñoo ñoo ñoo féex ndax fi mu indi ci sëriñ bi mm. ak ak ak lajjoor ak indi ko ci histoire tey taarix la teg te loolu sëñ am dafa am solo mm-hmm. nit ñi di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax surtout ma sëñ bi nan la doon jëflanteeg lu mel ni eh, lajjoor ah, ci xasida gi nga xamante ni bindoon na ko ci doon xamle ni moom loon ay bànneexi àdduna toppuloon ay neexite àdduna lam doon topp mooy yàlla te yàlla rek la doyloo mm-hmm. waaye dafa am ñetti laaj yoo xam ne sëñ am il faut ma laaj ko tey bala ma bala ñoo continé mm-hmm. muy dañ ni sëñ Tuubaa dafa ñëw ñetti yoon fii ci Ndakaaru mm-hmm. nee nañ sëñ ñëw na ñetti yoon fii ci Ndakaaru ñëw bu nekk sëñ am dafa am mbokki taalibe yoo xam ne nee nañ nañ leen leen ñetti ñetti ñëw yim ñëw Ndakaaru yépp ñetti ñëwam yim